Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te woo Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te woo mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ci xaar saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen cant ak ngërëm ñeel leen ngeen ñi suivre Setsima TV saa su nekk rek ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen mbokk yi xibaar yi dañu koy ñëwaatee ci li nga xamante ne bi moom moo di actualité euh, people mbokk internet yi saa su rek people dañ leen koy indil ci ni mu waree mbokk yi dañuy ñëw ak coow li nga xamante ne bi moom moo dox ba tey ci diggante Bass ak ki nga xamante ne bi moom moo di Fane ndax boobee ba tey ña ngay lam-lamee li nga xamante ne bi moom moo di seen mariage ba ba tax na nag kii nga xamante ni bii moom moo di Fane moom moom jot naa solu ba def li nga xamante ni moom moo di ay postam xamal nañu kat moom takk nañ ko waaye nag ko ko takk ma nga tudd monsieur Diagne xel dem ci ki nga xamante ne bi moom moo di euh, Bass Thioung mbokki internet waaye nag boobee ba tey euh, ñi ngi doon remarqué ne euh, ki nga xamante ne moom moo di Bass Thioung mosu see yéy mosu see yàbbi moom moom nga xamante ne moom moo di Bass Thioung xel daal di ñaaw loole ndax ki nga xamante ne moom moo di Bass moom moo takk ki nga xamante ne moom moo di Fandiaye waaye nag ñu am ci ay nouvelle yu leer ndax ki nga xamante ne moom moo di Fandiaye ba ñu xoolee ci ay page am moom daal maa ngay wax naan eh, ki nga xamante ne moom moo di artiste bi moom moo ko takk waaye nag waxul li nga xamante ne moom moo di tur ñu remarqué ne mbokk internet eh, benn ci famille Bass Diagne moom publié wul li nga xamante ne bi moom moo di mariage waaye nag ay mbokk eh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di faat Ndiaye ñoom ña ngay publier mariage bi ñi ña nga doon wax naan shooting la ñi naan du shooting mu nekk lu doy waar lool mbokk yi ñu remarqué nag ki nga xamante ne moom moo di Fatou Ndiaye moom itam daal di def li nga xamante ni moom moo di ab postu nekk ci avion ba di naan maan maa ngi nii di dem sama lune de miel seeti ki nga xam te moom moo di sama jëkkër waaye nag yenn site ñi ngi def na direction Espagne la jëm te nag ku xam ba suñu jamono yi xam ne ma nga foofee ca Espagne gannaaw ba mu fa joué spectacle bu am solo boobee nga xamante ne bii def na ko guichet fermé àdduna yëpp di ko lam-lamee moom mi nga xam ne moom moo di Fatou Ndiaye maa ngi ñuy wax na moom ma nga dem fële di direction Barcelone kamu fay fekk ndax Bass Thioung la wala déet waaye daal lu ci mënti am daal lañ leen indil ay leeral waaye daal ki nga xamante ni moom moo di Fath Ndiaye moom daal ma ma nga ñuy wan ne daal moom jël na vol bi ma ngay dem foofee ca Espagne te bu ñu sukkandikoo ci yenn um, euh, site internet yi ña ñuy xamal ne ki nga xamante moom moo di Bass Thioung ba mu joué foofe nga xamante moom moo di Espagne ba pare nag dafa daal di nag toog lan moo waral nag mu daal di toog foofee lan moo ko waral xamaguñu ko ba tey waaye daal lu ci mënta am daal mbokk internet di daal di leen wax na leen ki nga xamante ne bii moom moo di Fandiaye waxoon ne euh, monsieur Diagne moom moo ko takk ñëpp di lam-laamee naan ndax ba cunglaang du moom moom moomee ma nga jubali fële nga xamante ne moom moo di Espagne am na sax ñuy wax naan ki nga xamante moom moo di euh, Fatou Ndiaye dafay daal di dem defi li nga xamante ne moom moo di euh, dem yàlla moom ak jëkkëram ndax bas ci mu xamuñu si lu ci mënti am ci leeral dañ leen ko indil bu baax a baax a baax ki nga xamante moom moo di Fane Ndiaye ci ay postam daal loolu la ñu joto xamal dinañ ko gëstuwaat nag bu baax a baax pour mën a xam lan la uti foofee nga xamante ni moom moo di ca Espagne ndax dafa rejoindre jëkkëram wala déet mbokki internet yi ci biir loolu ñu ñëw ci quarantième jour Aziz Dabala mu nekk li nga xamante ni bi lu doy la mu nekk li nga xamante ni bi seen famille jooyate nañ ki nga xamante ni bi moom moo di Aziz Dabala jot nañu am sax ay révélation ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo di ay sëram ak ay frèram ñoom na ngay waxaat naka la Aziz Dabala daan dundee foofee ci kër gi mu nekk li nga xamante ni bi lu am solo loolu moom sax mi nga xamante ni bi moom moo di sëram ma ngay wax naan dafa gént ki nga xamante ni bi moom moo di Aziz Dabala naan diw moom moom ma rey waaye nag moom nee na diw moom mooy nga xamante ne moom la ko Aziz dabalaa wax nekk na lu doy nekk na tamit ku ku doy moom daal nee na nag du wax benn yoon tur bi nga xamante ni bii moom la ko Aziz dabalaa wax mais daal mu nekk li nga xamante ni bii jour yu quarantième jour bi ñi nga xamante ñoom ñoo dig waa kër Aziz dabalaa seen xol tooy na bu baax a baax a baax a baax a baax mbokk internet dañuy woy di ànd ak yéen ci li nga xamante ni bii moom moo di actualité Bougane Gueye Dany moom itam boobee ba tey ma gàddu coow la nga xamante ne bi moom moo am ci internet bi moom Bougane Gueye Dany ma ñuy xamalaat lan moo waraloon ñu daal di koy téye ba mu demee ca kanamu procureur ba ma wax naan moom mi nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany képp koo xamante ne wax na la li jot a xew du dëgg moom nag moom mooy nettali ci làmmiñu boppam ne moom lañu ko wax daal moom mooy que ne dafa def li nga xamante ne bi moom moo di diffa euh, diffamation euh, ci biir loolu aussi wax nañ ko ne moom mii nga xam ne moom moo di euh, Bougane Gueye Dany def na li nga xam ne moom moo di injure publique moom nag ci biir loolu ma ngay nettali na mu fa nekkee woon waaye tamit nag ma ngay cant di gërëm ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekkoon ci wetam mu ngi mel ni mu mel ni ki nga xamante ne bi moom moo di Pape Djibril Fall mi nga xamante ne dafa bàyyi yitteem yëpp daal di ñëw ci moom daal di koy jàppale bu baax a baax a baax ca foofee mu daal nekkoon moom daal moom Bougane Gueye Dany ma xamal ne daal moom gërëm na ki nga xamante ne bi moom moo di euh, Pape Djibril Fall bu baax a baax a baax ci biir loolu ma ngay nattali tamit lañ ko wax ci doomu moom yi nga xamante ni bi naan kon Bougane xoolal si doomu moom yi amuñu kenn ku dul yow te nga bàyyi politique moom Bougane Gueye nag ma ngay xam la ne xale yi sax xam nañ ne moom ci politique lay deewee kon amul dara li nga xamante ni bi tey moom la ci wax moom Bougane Gueye ma ngi xamal ne kii nga xamante ne moom moo di Wally Balago Seck da ko jàppale bu baax a baax a baax ndax moom ak soxnaam ay dara dañ daan ñëw fi nga xamante ni ba mu fa nekkee suba ngoon guddeeg bëccëg du xool naka la def waaye tamit nag di ko xool yéen besoin la gën a am pour ñu jox ko mu mel ni moom mi nga xam ni moom moo di Bougane Gueye Dany moom itam remercier na ki nga xamante ne bi moom moo di Wally Balago sekk bu baax a a baax a mbokki internet ci dañuy woy di wan di ànd ak yéen ci people ki nga xam ne moom moo di waali Bambey moom nag nee na dafa feebar ndax dañoo téye li nga xam ne bi moom moo di voix bi moom mi nga xam ne moom moo di Wally Bambey maa ngi ñuy wax naan ba mu ñëwee fii ci Ndakaaru ba tey ay jafe-jafe rek la fi am moom nag dafa bëgg def li nga xamante ne moom moo di carrière musique am waaye dafa mel ni waa Ndakaaru ñoom ñoo ko ci bàyyiwul ndax ay feebar yi nga xamante ne bi ma nga koy def ñenn ñi nag ni nga ko jàppee këne ni comédie ñii di laaj ndax Wally Bambey wér na wala wérul en tout cas daal commentaire saf na sàpp ci moom moom mi nga xamante ne bi moom moo di Wally Bambey mbokk yi lu ci mënti am daal nañ leen indil ay leeral bu baax a ñu wéy di ànd ak ci eh, juma bee boobee nekk fële ca eh, Pikine nga xamante ne bi dañu ko eh, kàmbali yore juma ji nag bi mooy troisième fois ñu ciy dugg di yóbbu li nga xamante ne bi moom moo di matériel ya fa nekk njëkk nañ koo def yóbbu ventilateur yi fa nekk defaat ko dajji keesu jàkka ji waaye nag cette fois ci nag c'est le pire ndax dañoo jaar jaar fi nga xamante ne bi moom moo di ci morgue bi ba ñu fa jaaree nag daal di dugg ci biir euh, jumaa ji euh, yóbbu lépp lu fa nekk lu nga xamante ne bi matériel lu ci mel ni haut-parleur lu ci mel ni ay ventilateur moom sax mag ñi xamal naan ventilateur yi war naa mat quinze ventilateur yi nga xamante ni bi lépp dañ ko te démonté daal di koy yóbbu imaam ba mag ñuy xamal naan eh, ki dugg fi nga xamante ne bi moom moo di ci biir eh, jàkka ji eh, kooke buñ ko tëjul ci biir jàkka ji ca biir morgo ba la jaar mag ñuy xamal sax naan moom sax warul mën a ànd moom kese ndax kat quinze ventilateur benn pneu kese mënu ko yóbbu moom imaam ba mag ñuy xamal naan sécurité bi ñu bëgg loolu amagul fi nga xamante ne bi tey moom moo di sa jàkka ja ndax kat trois fois ñuy dajji li nga xamante ne bi moom moo di keesu jàkka ñuy dajji fi nga xamante ne moom moo boori jàkka ji di yóbbu ay matériel loolu c'est moom imam ma ngi ñuy xamal naan euh, foofee nga xamante ne moom moo di ca Pikine euh, soxla na sécurité bu baax a baax a baax a baax a baax mbokk yi may laaj ndax keesub jàkka des na koy mën a daj jërë ngeen jëf. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wër di woo Setsima l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér